Ah, door salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet com ñu ngi leen nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi fii Colobane jàkkaarloo ak Abdou Bakhoum Abdou baaxum mooy manageru Ama Baldé yaakaar naa ne Ama bu combat saison bi tëjee ba léegi amul combat waaye ñu ngi koy démarché ñu fas yéen waxtaan ak moom ci combat yi nga xamante ne ñu ngi koy wax di wax Ama Baldé dinañ wax ci Ama Baldé Gris Bordeaux dinañ wax ci Ama Baldé Modou Lô dinañ wax tamit ci Ama Baldé Siteu waaye dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp Père Abdou Bakhoum maa ngi lay ziar. jërëjëf maa ngi lay ziar di nuyu di amateurs yi di nuyu axlu làmb di la commencé CNG bi nga xam ne moo jiite làmb di nuyu itam euh, le famille maanaam parce que mbër yëpp du mbëri mbër yëpp nag ndax ñii suñu jarbaat la ñii suñuy doom la ñii suñu rakk lañu. xëy na sax suñuy rakk ñu topp ñun mooy bëreetuñu waaye nag da ci am ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ñu ngi ci làmb sunuy màggit yi nga xam ne ñoo bëreen doo yàlla dogal ñu ne ci làmb ba léegi ñoo ne di nuyu di nuyu amat di nuyu itam euh, surtout nag le promoteur waaw loolu daal maa ngi koy nuyu bu baax di ñaan jàmm ak salaam ci saison bi ñu dugg nag sa borom mañ ci ay combat yu neex a neex. li ma lay laaj ci Ama Balde moo ci gën a yaatu kañ nga commencé engagé Ama Balde. Ama Balde maa ngi ko commencé engagé depuis 2008. waaw ndax euh, euh, kere bi nga xamee waajuram wu góor di Falaye Balde nga xam ne moo doon càppa colli gi euh, mu xale bi commencé bëree ndax bi mu commencé bëree mbapat yoru ma woon ko ndax boobu mbapat mbapat rek lan xale yi mën nañu dem sax engagé wu mën nga bëri mbapat sax bala nga faa jóge ñu jox la avance beneen mbapat waaye nag bi mu duggee arène yàlla dogal am ay mag yu ko war a jiite engagement war a am maintenant war a am bàyyam dénk ma ko ci kàttanu yàlla boole ak moom ñun ñaar man ak moom ñu toog waxtaan sunu waxtaanu famille waxtaan waxtaanu ngor waxtaan waxtaanu jàmm waxtaan waxtaanu ànd ak diggante nit ak papaam mu doon sunu papa nag du ñun ñëpp ak kuy yëngu làmb nag ak képp koo xam ne da nga yëngu làmb biir pikin tey jii mën naa ne papa Falaye Baldé mooy sa papa ci làmb ñu jox ko ko cër bi nag ñii ko ko joxit joxin bu leer mu doxal ko it doxalin mu rafet. muy Falaye Baldé di ñaan sa borom yàlla may ko fa mu toog mu ci suuf sedd guy sa xaram xare ko àjjana taba ko jannatul firdawsi booba léegi ñu gis saison bi mu tëj tëjee ba léegi ba tijjiwaat gis ñu Ama Baldé am combat lan mooy sabab bi. bon bokk na ci euh, xëy na ñoom euh, euh, adversaire yi mu yi mu lim. Mm, yàlla dogal na ne xëy na am nañu luñ ci lu ñuy lu ñuy xëy na lu lu tax nanguwuñu ndax bi ngay bul bul bul fàtte ne euh, jamono bi wax naa ko waxaat ko jamono bi nga xam ne bi moom gagné na TNT bi mu tournoi boobu ñu defoon nga xam ne euh, bokk na ci mu bëri bëri na ceeg sos bëri ceeg euh, tapatin bëri ceeg guy gi yàlla dogal ñoom ñett ñëpp mu daan leen ndax bul fàtte ne daana wax sax ne ñoom waa Pikine nañ may yónni nëpp points neuf points yi ci kàttu ne waa Pikine dañu mën naa ko décrocher indi leen ko sans borom jàppale ko nag mu décrocher ko mais bi mu toogee ci plateau bi keroog bi mu mujjee kër dernier combat am dafa lim trois averti euh, euh, kii adversaire am bokk na ci tab taba euh, nu mu tëti Lac de Guiers numéro 2 bokk na ci Modou bokk na ci Gris Bordeaux bon yàlla dogal xañ na ñoom ci seen biir am na lu tax daal ñëwuñu waaye yaakaar naa ne ku mel ne am bu bëree tournoi bu toll noonu am ci nam yu toll noonu ñëpp xam ko ci mu def li mu def différence bi mu def parce que ku mel ni ku ko daan mu bokk ci VIP yi benn mbër waratu laa bañ ku daan Malick Niang mi nga xam ne champion la boo xam ne bu kelale bu leer ñii di ca pëjëb yëpp kenn du ci laaj dafa euh, Malick Niang de wax jëy bari rek waaye doo dégg mbër mu ne na ma jox ma Malick Niang ku ko ci dëkk itam say bokk tere la ko kon ci wàllu woowu bokk na ci ñi nga xam ne ñi moom daan leen yegg fi mu yegg kon bu tàllalee beneen mbër mu mën a doon su la neexee mën ngaa bañ a bëre moom bu la neexee itam nga waxtaan ak say bokk yër say sëriñ xoolaat say say xool say biteel bu la arrangé woon nga dellu ginnaaw yaakaar naa sax foofu lañ toll ñoom foofu ngeen foofu lañ toll ñoom lim nga sànq ñetti adversaire boole ci Lac de Guiers numéro 2 Lac de Guiers numéro 2 yow bokk nga ci ñu ni dafa war a bëre ak Ama Baldé ci beneen côté bi ci staff bi ba léegi am nañu bañ ni loolu combat ndax ñoom ñaar duñu bëre lan nga ñu ci mën a leeral non la promo mooy dernier combat dernier euh, kii bi ñu ko mujjee introsé en France ci combat bi nga xam ne bi xëy na ñoo ngi ko doon préparé euh, diggante Modou Lo ak Balla Gaye euh, am Baldé yàlla dogal mu jóge fi dem France seeti jabaram ak njabootam bon fekk nañu ko foofu noonu laajte ko bari ci combat mag la dëgër ñu ne mu leen à suivre la loolu à suivre mooy à suivre loolu man dàqul mooy dàquma combat bi te itam gisuma lu tax ñu wàññi man di bañ a bëre xëy na ñoom. muy magam muy Jules Bal rek moo ko wax di magam xëy na bokk naa la de Guiers xëy na tuuti benn gis-gis mais gis-gis boobu sax ba tey ci wàllu làmb mën nañoo bëri te ne fa loolu du yàq dara. làmb làmb rek la tey comme yàlla dogal na bokkuñu écrit bokkuñu dara moom xañ na pël la ci benn côté bi jàlloo pël la xëy na yaayam nekk séeréer am bal yàlla dogal mun yaayam nekk lébu dëkk Wakam ji ak Ngor diggante Wakam Ngor. ba tubaab jalaaw ay mbokkam rek fi ne yaayam bi ko jur Falaye Baldé jóge génne Bisaaw di pël bu leer nekk champion bu leer laajoon naa ko ci dundam ne ko est-ce que mën ñoom ñaar mu ne ma waaw pourquoi ça ku dul doomu faa doomu duba lees doo waa Pikine Ama day bëri yow loolu ko waxoon te maa koy fekki. loolu Falaye moo la ko wax dina bëri ak Lac. loolu werante wax naa ko magam moom Jules Baldé sax wax naa ko mu ne lu tax waxoo ma ma ne ko non parce que xëy na ko waxee nekk ko fa woon. mais la ma ko laaj la taxoon man laajoon ko xamu naa ne làmb ju mel doon dina yegg si waat fii mais dana moom daal jàpp nañ ne moom waruñu bëre parce que xëy na am nañu ay supporters yu ñu bokk au niveau de Casamance ak yeneen xëy na mais daal jàpp naa ne man sama xalaat bu gàtt xanaa mbër mi ne ma du ma bëreeg moom dootuma bëreeg moom waaye li wóor ma damay jàpp toujours ne adversaire am la yow daal li a jàpp yow Abdou Bakhoum en tant que manager en tant magu écrit bi de Guiers numéro 2 bis bu leen làmb boole danañ bëri. waaw loolu làmb boole na sax loolu ñu war a bëre la loolu dara dañoo war a bëre dañoo war a bëre. keneen koo xamante ne lim muy Modou Lo wala bala ñëwee ñu ci Gris Bordeaux Gris Bordeaux doon nañ wax seen combat waaye instant bi Gris Bordeaux moom nee na Balla Gaye la soxla. mais Gris man Ama leen. combat boo xam ne risque la parce que combat boo xam ne bi yow da courant da laa jàpp ci diggante bi nga am ay problème ak sa say kilifa ci wàllu làmb ñuy xool ndax dinañ la sanctionné duñ la sanctionné ñu ak sentiment bi am ah man dama jàpp rek ne euh, promoteur bu ko bëggit nda nga am lu leer comme quoi que war na mën a bëre parce que ñun tam duñ jël avance boo xam ne bii dañu dem ba ci biir sanction am dootu ñu mën a bëri ci saison bi. non sanction kay am. ah waaw mais loolu je ne loolu dañ la wax lu ñu la ci ñoom il paraît ko doon na ñëwaat PV lay laaj PV ci wax. il ñu wax na ko dañ ko laaj wax na li mu wax bu leen convaincre mën nañoo négocier moom bu leen convaincre lii dal mbër yëpp ñu dal leen parce que am na coo xam ne yi boo defee loo xam ne wax loo xam ne waroo ko wax ñu laaj la sama sañoon loolu sax du ko ci fekk. ndax xale la boo xam ne bii làmb soxla na ko ku seefaata Demba Diop di fetal amitié normalement ci yoon man dama koy ñaanal rek ñu kàttanu yàlla loolu sax bañ ko cee fekk. mu wér ci jàmm bëri jiwaat même bu bëree wul ak ñun ndax moo bëri jët ci jàmm rek. bu wéree Gris Bordeaux su wéree ci jàmm bu naree bëri ak yéen da ngeen am problème ndax Gris Bordeaux day gauche droite te pied bi ngeen di teg ma wax leen ko léegi dafa arrangé Gris Bordeaux muy pied droite bi Ama di waaw euh, kan na ci daan ci giri euh, ci pied droit pied droit buy teg man dañu ma ci xam ñëpp mu ci daan kenn ki daan na ko Eumeu Sène contre Eumeu Sène la jël bi mu daan Eumeu ak jël bi ko Eumeu Sène daan pied droit la ko Baboy da ko tegal pied droit fàqar ko mu ñëw def kat ma dugg ca géej ba gars sax may tooñ na ma dañ laa masse courant loolu de fekk naa ko Kor Ndiak tegal na ko pied droit su ma juumul non du Kor Ndiak am na keneen ku. bàyyi ma ñoon droit la ko tegal. bàyyi ma merci beaucoup mais bàyyi ma ñoon combat bu njëkk ba gis ngeen ni mu demee. dañoo xeex ba dugub wat bokkal beneen bi ci des xañ na ni mu demee la rek tey mu moom la moo xam ne xëy na ne ci écurie boo xam ne ki Bamba Dieng volontairement lay bëri moom bàyyi ma ñoom fitam ak jom ma koy bëriloo rek waaye ci ginnaaw moom am na nu mu doon demee sax mu contre ak Modou dafa daan Modou Lo. lan bàyyi ma ñoon. bàyyi ma ñoon fan la daan Modou Lo. daan Modou lan moo am CNG. non la fa am mooy danañu xëy na boobu stade bi moo bi yoon ci kaw bu ñu joxoon wiir di xëy na am na ci yu bari ñoo xalaat nañ ne na day am ay moora yooyu mais yooyu man gëwuma ko parce que euh, stade bi passé moom Balla Gaye gis nañu ni mu demee Balla Gaye mm, dañoo baloon rek ci kaw ci kaw tribune bi mais ba ko Balla Gaye waree daan da koo daan. yow ma lay laaj Gris Bordeaux nga dem ci Modou Lo Modou Lo Modou Lo ban problème nga am ak Abdou Bakhoum lan moo tax aw maag benn moomu benn problème mais dama jàpp bu fekkee ne ay magam nañ ko may sens pour mu bëre ñoom dafa war a may ay frères am ñu bëre ak ñoom ba ci kawam. kantaan nag mu ne du ma bëre kenn su ko neex mu ne du ma bëre moom loolu intéressé wu ma mais li ma wóor daal mooy man laa wax man mbër mu ndaw mu ci bëree ba si ci Ama Baldé su ko Ama Baldé bañee sax dinaa ko nanga war a bëre moom maa la wax lii. mais Modou Lo est-ce que wóor na ci yéen parce que Modou Lo boo baaxul ci comme tollal kii de mbag moom Modou Lo ñemewul Ama Baldé nu muy bone ci ñun. lan la ragal ci Ama. merci beaucoup moo ko xam comme bu ko gisee fi tam dem. gis nga ni Modou bu gisee Ama day tiit. non déggoo li ma la wax daje nañu dajewaat dajewaat waat fi barab xam nañu ne ñoom ñaar. fan ak fan lañ des. non ku bëreeg nit ki mbapat nga ne dama dama koo xeeb loo caaxaan la bëri nañu mbapat Modou Lo ne daan na ko mbapat kon na la def ba daan ko mbapat xanaa da koo séen ak bëreeg daan ko. dañuy image yaa ngi fi kat image yi. noo ko gisee ban heure la. xaw ma ban heure waaye daan na ko. non 5 heures la ñu jox rendez Ama Baldé ñëw fa 5 heures et mu fekk na ko ci làmba ja ñu 17 heures 30 bi ñu ñu bëree ñoo ngi bëree 23 euh, heures 45 parce que minuit mooy quart la ñu sëgg bëree mu wër ko ndomba mënu ko daan. ñoom xaadim nga jaga dugg ci géej ba ñoom xaadim nga jaga xam nga xaadim nga jaga ak xumb xumbaayam. waaw kon nag amoo Modou Lo daanu Ama ndax moom Pikine la jàng bëre moom. kon nag amoo Modou Lo bu ñu bare nga xam loolu war a amu ci. na nangoo jël commence bi rek et puis Modou Lo sax ñun taxu ñuy ki le ci ko daan lañu soxla ak ñi ko daan ñi ko daan sax laay wax ku dul ba ama bal kii mi ko daan euh, Balla Gaye mi ko bëreel Bombardier mi ko daan soxla nañu ko nañ ma jox Bombardier man Bombardier laa soxla sax ñii du ñu mbër ay Lac de Guiers rek yooyu yooyu sax taf ci ginnaaw Bombardier mi champion bi nga xam ne bi jël na roi des arènes deux fois moom laa soxla man da ngay baab Bombardier rek instant bi non non la roi des arènes ku ko jël deux fois kay jaru baab daan ñu bari daa fi ay champion ñu ko daan ñëpp am na ñoo xam ne dañ ko daan sax mais xam nañ ne ñëwuñu ko lu leer laa la wax. gis nañ nga def benn sortie nga ni Modou Lo dese na yeneen quatre défaites foo ko teg yow da ngay gisaane wala lan la. non xam nga euh, mentalu làbb nga xam ko boo ko xamee sax dañ naan da ngay luxus fekk demewul noonu rek mu ngi mel ni sunu politique beeg waykat yeeg même coxeur yi sax. fu client xam xam nañu ko fu client xam nañu ko dañuy dàq dàq gi ñu dàqante rek pour client yi fu client ne xam nañu ko noonu la sàmmkat mbott ñu na xam nañu ba cay soox du caaxaan. ñun mais Modou Lo sooxu ci sàmm ci mbott yi. non sooxu dama ne sàmmkat mbott bu ne xam na ba cay soox maanaam bu yàgg boo yàggee ci seen biir maanaam ni ma la ko mën a waxee da xam fi ngay teg sa tànk da xam ne war a mën a am ci diggante ñaari adversaires yi war a bëre war nga ñoo mën a lagat daw rombale nga xam ne kii il est puissant kenn ki nga xam ne il est mobile nga xam ne il est am na physique parce que bi mu bëreeg Modou ba Modou Lo bi mu bëreeg Balla Gaye ñoom ñaar laaj na ma ma ne leen physiquement Modou Lo moo gën a taxawagun mais moralement moralement mentalement Balla Gaye mën te loolu feeñ na ci làmb ji kon ci wàll woowu du ma du ma du ma jàpp sax ne xaj na Modou Lo moo mën keneen wala Ama mën keneen mu bu ñu bëreeg moom dañoo war a bëreeg moom. ni ko mën a daan noonu la ñu mën a daan mën naa daan mën naa daan noonu ku ne ndax ay champion la fi daan. li ma jaaxal kan defet yi nga wax kan kan nga yaakaar moo koy teg Modou Lo. non moo xam combat bii ñëw ak yeneen combat yi mu jël rek. bu jël bii ñoo bakkanam la ci teg de. non ci lay des wala mën na cee des am na ñu noonu ci campagne am na ñu teg seen bakkan seen bakkan nañ ci bëgg a des. ñu tegoon seen bakkan ci campagne bii ñu génn nii am na ci seen bakkan nañ ciy bëgg a des. loolu dama xam bëri na presque vingt cinq combats mosul tegale deux défaites. waaw parce que day tànn comme mbër la boo xam ne da ngay tànn te ñi ngay tànn ay mbocc ngay tàng ñu leen ñu fa xataraay dëbb ci sa kaw ñooñu la ñu bëgg wala kuy bëreeg ñoom di leen may temps muy calculer di jeex jeexi yooyu amul fii. Lac de Guiers mbocc la. non Lac de Guiers euh, Modou Lo ne Lac de Guiers moo ko waxal ba mu ne Lac de Guiers ñemewu ma. Gris Bordeaux mbocc la. ah Gris Bordeaux mbocc la. dañ koo soxla rek Modou Lo daan ko mais bu doon doon loolu du ko daan. kan moo ko soxla. ah xañ na ci mbokkam ne bokk ñoo xam ne ñu bokkoon nañ ci ñoom Euh, xaritoog ñeneen ñi ci des won ko ay faay ay faayam. yow daal du baaxum lu ne yaa koy xam mais quatre défaites yi lii man da nga ni ba da ko daan ak kan. ak keneen ku mën a ñëw ci moom ak ku mu jël kooku da koy daan. da koy tegle wala du ko tegle. dana tegle quatre défaites yi. du baaxum li nga wax li nga yéene baaxul de. ah waaw mais lamb ji moom da ngay bëri baa ngi bàyyi làmb ji da nga continuer dëgg neex na ñaata ñaata victoire la tegale di ko daan. ñoomu daan du ñu ay nit mais ñi koy daan ay nit la doon ay mbër la ñuy doon yoo xam ne ñii mu leen a bañ ndax day tànn day tànn combat am dernier combat dafa doog combat moo tax mu bëri jeeg Balla Gaye te Balla Gaye du ñeexum ñeebam kenn Balla Gaye rek Balla Gaye champion la. ba kat yéen man Balla Gaye gisuma ko waa Pikine gisuñu ko. waaw ñenn ci waa Pikine. non ñenn ci waa Balla Gaye li rek mu doon xam na xam ne li mu yor làmbam la xam ne ay ba mbokk ma nga jóge ba Guinée ba Casamance ñëw seet si ko gisoo benn kenn ku ko sotti gàllaaj ña fa am bari kas néew ci waa Pikine ñu ko sotti gàllaaj xañ na mbokk la ci Ama Baldé rek ay mbokk lañu wala ay am di jàmmam la yoo xam ne day joge jóge Géejawaay di ñëw Pikine ñii di jóge Pikine yi dem Géejawaay man xaw ma fu mu dëkk moom moom Balla Gaye mosuma koo seetaan mosu ko fréquenté. moom moo la bi ñu bëri koo faral non Balla Gaye laa faral